salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum li xew TV li xew TV ñoo leen di nuyu di leen siyaare pour ngeen jàllale ma live bi nii léegi léegi léegi léegi pour mu jàll mën a wër àdduna li xew TV waa seexu na. waaw man daa am lu ma jaaxal. waaw ndax dañoo gis ne Macky Sall dafa campagne fii. Mhm. bi fi campagne ñu dem élection. ñu gagné ko fi Touba. waaw bi ko gagné Touba. Mhm. léegi ñoom ñu xëy. ku bokk ci ñoom am déclaration bu mu def. Mhm. ne maanaam moom li am na euh, xalaat boo xam ne. dafa bëgg jël autoroute Ila Touba. Mm-hmm. dajati ko. waaw maam ñoom bi ñu koy def dañ ko defoon pour Sénégal yëpp wala dañ ko defoon pour ñu watee leen wala dañ ko defoon pour campagne man daal loolu moo ma xaw a jaaxal message boobu daal moom ñëpp ñaawlu nañ ko te kon ñun tamit dinañ ko ñaawlu bu baax. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna euh, wax dëgg yàlla loolu maam góor man li ma ci wax mooy. Euh, dama jàpp ni kon moom bi muy def euh, autoroute bi di ko tuddee autoroute Ila Touba boobu daf ko doon campagne quoi bëggoon a euh, corrompre waa Touba pour que ñu mën ko wooteel fii nii quoi te Touba nag dafa nekk réew moo xamante ne si nii wax dëgg yàlla kenn mu leen a jënd quoi parce que ñoom seen gëm-gëm de voix moom la yore quoi ñoom ñooy xool ki nga li ki nga xamante ne si nii moom ñoo leen neex ñu wooteel kooku noonu quoi mais nekkul ni da ngay ñëw di fi xëpp wala leneen leneen tax ñu di ñu nekk instant bi wax dëgg yàlla bi ñu déggee loolu noonu donc am nañ lu nga xamante ne si nii moo du ñu naqari trop quoi parce que dañoo jàppoon ni Macky Sall bi ñëw di def autoroute Ila Touba bi da koo defoon ngir yàlla def ko ngir jëm Serigne Touba wante nekk na defu ko woon ngir loolu da koo defoon pour que ñu mën ko wooteel mu am deuxième mandat léegi nag bi mu nag ba xam ni instant bii ni perte na Touba saa bu defee élection lu mat doon day perte Touba léegi mu wax ki nga xamante ne si mooy dafa yaa ñu ko léegi ci télé bi nga ngàññi waa Touba ni autoroute Ila Touba bi koy changé def ko autoroute Ila Fouta muy lu léegi bu defee autoroute Ila Fouta ah kon màggal gi na ko yóbbu après. mooy loolu fi ma ci duggee fi ma ci duggee mooy leen ñoom dañoo jëfru ni ko mën a ko mën a waxee dañoo jëfru. c'est ça quoi mooy. gis dégg naa benn waay boo xamante si moom daf ne daf ne autoroute Ila Touba da koy yaa ngi dégg. Mhm. keneen ki taxaw commencé di manipuler Touba te damaa bëgg ngeen xam ne Touba ay maara dëgg la ñu ngi fi Touba ndigal la ñuy xaar mhm. waaye da nga dañoo war a xam ne Touba amul benn sëriñ bi fi taxaw ne watee leen di déedéet du am ñooy xool ku leen arrangé doy leen jox respecté sëriñ bi bëgg sëriñ bi teg sëriñ bi fi ñu ko war a teg taalibe yi boo jàppee sëriñ Touba ñu jàpp la boo saboté sëriñ Touba ñu saboote la boo fonkee sëriñ Touba ñu fonk la taalibe yi ñoom foofu rek lañ ne taalibe yi Touba kenn leen a ger ci xaalis non non ñoom dañuy liggéey pour def ci sëñ ñu boññee nag fonk sëñ bi jàpp sëñ bi jël sëñ bi am foo ko teg ñu teg leen ñu teg la foofa boo jëlee sëñ bi soofandal ko catantal ko ñu ne ñu ñu catantal la rek ndax laa ila Touba léegi ne Touba ngeen ko def bu doon Touba ngeen ko def yéen ku fa jaar da fay bu fa Touba sénégalais bu fa man di jaar da ngay fay bu fa doomu Touba jaaree day fay kon loolu defu leen ko Touba dañu koo def ngir seen intérêt yi réew mi ak intérêt yi si yéen seen gouvernement yaa ngi dégg te loolu duñ leen ci neexal lu tax duñ leen ci neexal mooy dañ leen dénk suñu xaalisu réew da koy defar par force mu neex leen da ko war a defar mu naqare leen da a defar carrément bi ngeen ko defaree sax mhm. boo ko yóbboo Fuuta mën ngaa toog ay weer yi weer doo gis oto bu jëm Fuuta dañ <laughs> waxante dëgg bu fekkoon Touba seen intérêt bu fekkoon ne seen intérêt ngeen koy def du ngeen da ngeen a xam ne Touba li fi dugg jamono ji ak li fiy génn jamono ji autoroute bi ngeen ko fay leen amel njariñ nañ waxante dëgg quoi te taalibe yi nag ñoom Serigne Touba rek moo leen ñor. yéen nag li seen problème da jël xaalis bi di ko jox maara yi. yaa ngi dégg maara yi nga xam dañuy politique di leen nax da ngeen a war a ñëw wàcc biir Touba dox ci biir Touba waa Touba askan wax ak sëriñ si li fi ci ay li yoo xam ne dañuy xëy taxawaal di semé kenn xamul nu mu toll ah, jël ay milliards jox benn personne waxal waa Touba ñu wateel ñu loolu duñ ko def duñ ko nangu xam la tax duñ ko nangu mooy Touba defalin fi yenn usines yoo xam ne ndaw dañ ciy liggéey defoo leen fi bëri bu liggéeyukaay defoo leen fi dara autoroute Ila Touba bu ngeen ko fi defee tey bu nit feebaree da ko yóbbu ci tëli naa ko jaar fi dem Dakar ana hôpital bi ngeen waxoon fii da ngeen koy defar ana hôpital ba seng yaa ngay naaw ana xaalis bi ngeen waxoon ci leen te bi ngeen jël di ko jox maaraay yi ñu leen wateel wàcc leen ci terrain bi ngeen wax ak waa Touba wax ak bi wax ak taalibe yi wax ak yi loolu sëñ bi bëgg sëñ bi du joxe benn ndigal ne wateel leen diw Touba ñoo xool ku waa Touba idée leen doy idée fi wax lu tax ñu koy wateel kon wateel nañ ko. Mhm. ñàkk ngeen Touba perte ngeen Touba seeti leen leneen. waaye daje ay autoroute ila Touba te yooyu sax bu ngeen koy wax daaka ne di ngeen a jëfru ndax am na yoo xam wax yoo xam la. mais li gën a bon nag mooy ñàkk ba pare nga bëgg a ñànki quoi te loolu dafa ñaaw yaakaar naa loolu askan gu nekk rek euh, war na ko daw quoi parce que ku soxaree sag ndoro sag dee day ñaaw Macky Sall nag instant wax dëgg yàlla da nga bett ñu baree baree baree baree bare yaa ñi nga àndal da ngeen rusloo Sénégal rusloo waa tubaa parce que yéen bu ngeen demee bay wax lii nii nii ba ngeen demee ba di ko wax war ngeen a xalaat bu baax a baax parce que lii nii mën na la yàqal lu baree bare baree bare parce que Touba fii lépp lu fay def lu nekk rek fekk na Serigne Touba ñaan ko suñu borom ba pare. Mhm. Serigne Touba lépp lu mu ñaan yàlla avant mu koy ñaan yàlla fekk na yàlla may ko xum pare. kon da nga a xam ne lii ngeen fi def nii du yéen de lii Serigne Touba la. Mhm. ndax Serigne Touba mooy Sénégal. Mhm. ginnaaw yàlla bu ñu demee ba am dañ ko sant Serigne Touba. kon instant bi lépp lu ngeen def ci Touba rek da ngeen war a xam ne lii nii. Mhm. liggéeyu Serigne Touba la mais du seen liggéey. Mhm. ñun du leen sant Serigne Touba rek lañ sant duñ sant keneen ko yàlla bind ko dul Serigne Touba. Mhm. waaw man nag lii rek mooy li nga xamante ni moom laa ne woon gars yi ci sànni loo xam ne wax ju ñaaw ñaaw la. kenn rafetlu ko ci Sénégal. waaw kon li xew TV li xew TV damaa bëgg ngeen jàllale lu ne live bi ba mu mën a wër àdduna ba ñëpp mën cee jot te xam ne dëgg rek moo ñu fi waaye te boo xam ne amal na maam waa Touba njariñ bu baax mooy maanaam bu ngeen dee politique it na ngeen ñëw fii wax ak askan wi wax ak doomi Touba wax ak taalibe yi waaye dem ci sëriñ si di leen wax te sëriñ si fii benn ndigal moo fi am muy sëñ Muntaxa te sëñ Muntaxa du joxe benn ndigal leen kenn ndax moom moo njaboote ñëpp moo njaboote ñëpp benn baat la am baat bi baatu ñëpp la amul day jàpp kii bàyyi ki sëñ Muntaxa ku ñëw mu ñaanal la képp koo xam daam looy wax Touba da ngay ñëw wàcc taalibe wax ak taalibe taalibe wateel la yaa ngi dégg waaye jël say milliards dem ci jox benn maara mu toog fa mu toog jël ay tiset sol leen sol leen nit ñi moom boo leen joxee tiset woo leen ñu dem ndax am nañu ah, parce que gars yi moom boo leen joxee a jotee ñu leen neex loolu mooy Sénégal instant waaw loolu mooy Sénégal yow waaw kon instant dafa jot ci boppam ñi nga xam ne politiciens yi ngeen yow yéen tamit xam ne ñun léegi dépassé nañ foo xam ne fu ñuy naxee la ndax dañoo yow tamit aussi loolu il faut nga xel te maanaam kooku naan day dajjite autoroute Ila Touba day a yàq ah, yokkal Macky ay noonu day gën a yokkal Macky Sall ay a yokkal Macky Sall ay day dajale autoroute Ila Touba bu ko dajatee maam lu mu bon bon Touba am nañu fi wateloon Macky saal te bu demee deuxième tour day gën a ñaaw ndax loolu baat bu ñaaw la ñun suñ Touba lañ gëm suñ Touba lañ am suñ Touba lañ yaakaar yaakaaruñ kenn yàgg nañuy dem Dakar ak Touba te jaaruñ ci autoroute nañ waxante dëgg ba suñ Mourou Moustapha di jëlee raay bi di ko indi Touba loolu yàgg na te boobu la xaalis gënoon jafe boobu la xaalis gënoon a amul ba jamono ji mu neex kon nañu respecté nañ respecté Serigne Touba nañ respecté nañ respecté taalibe Serigne Touba yi waaw ñun amuñu lu dul Serigne Touba ku yaakaar na nag dañuy ger ñun taalibe yi kenn mënuñoo ger boo ñuy ger xamal ci loo ñuy gere jërëjëf Serigne Touba moom nga ñu mën a jaay mu saf ñu kenn mënuñoo jaay bijaaw wu rëy kenn mënuñoo jaay oto bu neex kenn mënuñoo jaay kaala wu rëy kenn mënuñoo jaay garaam bu buñ daakaande xam nga lan ñuy jaay jërëjëf Serigne Touba ñu jënd boo ñu ko jaayee rek am ñu waaye pas ay milliards pas ay oto pas ñun yooyu gëmuñu ko luñ gëm mooy Serigne Touba waaw sëriñ Touba rek nga ñu mën a jaay ñu jënd ko sëñ Touba lañ am ñun Sénégal sëriñ Touba lañ am ñun Sénégal ku respecté sëriñ Touba fonk sëñ Touba te sëñ Touba nag képp koo xam ne liggéeyal nga ko te muy ci yow xooloo ci benn intérêt lu ma xooloo ci benn intérêt boo xamante ni pour sa intérêt bopp la pour sa diggante ak sëriñ Touba sëriñ Touba fay la waaye am ñu résultat li leer ne autoroute bi ngeen doon defar sëriñ Touba taxul te bu ngeen seetaanee sama vidéo ci ginnaaw waxoon naa ne woon naa leen Touba du ngeen fi gagné ndax autoroute bi defoo leen ko ngir sëriñ Touba man lépp lu may wax day

Serigne Touba ñu dellu ci xam ji rek bàmba bay na góob na jag na ràbb na ay saaq semb bojj wal na mooñ na di wax ju am solo ci ñun murid yi nañ gëm suñu bopp te gëm na Serigne Touba lañ am duñ ko yemaleeg lenn duñ ko yemaleeg kenn waaye nag ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba di Serigne Mountakha ni ngeen dem ci ndigalam nañ dem ngir jëmmi Serigne Mountakha ndax Macky Sall autoroute Ila Touba bu doon da koy defal waa Touba wala mu koy defal waa kër Serigne Touba avant màggal Touba la ko immigré waaye du néeg ba màggal jàll mu tëj ko néeg ba màggal gi jàll bay élection yi di waaj a ñëw moo xam ne mi ngi jëm campagne mu doog di ko ubbi kon xam na loolu defu ko ngir Touba def ko ngir jëmmi Serigne Touba da koo def ngir boppam ngir mën a amaat beneen mandat waaye ñun al leen gëm suñu bopp ñoo moom suñu électeur ñoo moom ku ñu neex la ñuy wateel ñun ay murid lañ ku ñu neex la ñuy wateel wateeluñ benn Macky Sall soxlaw ñu ko nañu abal ñun ku ku ñuy jënd Serigne Touba ku ñuy jënd ci Serigne Touba dinañ de maanaam do maam di ñu am de waaye ci condition yi ñuy amee mooy du ñu xamee ne yow da ngay campagne bëgg ñu am foo ñu jaar bu fekkoon autoroute Ila Touba da nga ko def ngir Touba wala nga def ko ngir Serigne Touba avant màggal Touba nga ko immigré añ leen waxante dëkk sénégalais yi yeewu nañ